إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم أنا من gisoon ni سبحانه وتعالى subhaanahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mu naan innal insana naka doomu aadama uh, xuliqa moom de dañ koo bindee mu nekk koo xamante ne uh, halwaa dafa uh, nekk ko xamante ne dafa yaafus te dafa dafa nekk koo xamante ne halwaa dafa caalit iza massahu su ko laalee alxayru lu baax moom mu daal di nekk iza sharru boog lu bon su ko laal gu ndaw lu mu tuuti tuuti ci laal mu daal ne nekk koo xamante ne eh, ja eh, jazua koo xamante ne ku ku ne lacc la wa idha massahu su ko laale alxayru yiw manua mu daal nekk xañaakoon ñu gaa gisoon nañ suñu jotaay bi weesu ci ay borom bi subhaanahu wa ta'ala ba fi nga xamante ne foofu la foofu la ñu woon fi borom bi eh, subhaanahu wa ta'ala di wax ci wàllug xayr maanaam iza massahu su ko laalee maanaam laal bu ndaw luum tuuti tuuti lu mu am ci xayr ci al xayr ci yow e, rek manam manua mu daal nekk xañaakoon li nga xamante ne moom mooy maanaa yi nga xamante ne moom la maanaawu al xayr yore bokk na ci maanaa yi nga xamante ne moom lañ ci gisoon moom mooy e, maanaam alquran comme e, comme fi nga xamante ne moom la waxoon ne yéefiri ما ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi mébétuñu maanaam yéenewuñu leen mukk maanaam muy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu weddi yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ci waa ahlul kitaab weddi li nga xam ne moom la yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñoom ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy bokkaale yàlla ñoom ñëpp amul kenn ku leen ci yéene yéenewuñu leen li euh, nga xamante ne moom mooy ngëneel gu ma maanaam xéewal gu rëy gii te moom mooy alquran moobu xayr alquran lay tudd bu tukkee euh, euh, min rabbikum ak fi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa di wax naan maanaam bokk na ci njariñ maanaam fi muy teg feneen moom mooy lu ëpp njariñ comme bi mu naan maanaam sax min ayatin aw nunsiha natti bi xayrin minha aw misliha duñu nasaxal benn aaya wala bokk Euh, maanaam sax min ayatin aw euh, euh, maanaam sax min ayatin maanaam du ñu nasaxal benn aaya lulul ne mu ne lu lulul ne aw aw nun si xaa wala boog ñu bàyyi ko maanaam jël remplacer wuñ ko par beneen waaye dañ ko fee bàyyi mu ne lulul ne rek nag bi xayrim min xaa dinañ indi aaya boo xamante ne moom moo ko gën wala boog aw misli moo ko ëpp njariñ ci yéen wala boog aw misli xaa wala boog mu yem njariñ njariñ ak yéen ak gisoon nañ tamit ne bokk na ci maanaay moom mooy alal mooy bi mu naan masalan kutuba alaykum idha hadara ahadakumul mawtu in taraka khayran al wasiya maanaam ne su fekkee mu ne farataal lañ ci yéen su fekkente ne dafa am kenn ci yéen koo xamante ne dafa bàyyi fi alal bu boobaa mu daal di bàyyi fi maanaam in taraka khayran maanaam mu bàyyi fi alal bu boobaa mu bu boobaa mu daal di nekk wasiya maanaam bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy maanaa yi moom mooy euh, al afdal maanaam mooy li gën comme li nga xam ne lu borom bi subhaanahu wa taala wax bi mu naan yasaluunaka anil yataama xayr maanaam dinañ la laaj ci li aju ci njëriñ mi mu ne bu fekkente ne bu boobaa maanaam fadl lay tekki foofu maanaam moom mooy yéwénal ci ñoom kooku ngëneel rek la defal defal leen euh, lu baax loolu euh, ngëneel la Euh, gisoon nañu tamit ne moom mooy safaanu lépp loo xam lépp loo xamante ne rek lu bon la loolu da koy tuddee xayr maanaam gisoon nañu tamit ne maanaam comme fi muy waxee naan euh, bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir yàlla ci sa loxo rek la nekk yow yow sa loxo rek yow yow yàlla la la yu nekk ndax yow am nga kàttan ak sañ-sañ ci def lépp bépp mbir naka noonu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, maana bi nga xamante ne Euh, moom mooy euh, alxayru moom mooy ak ak ak ak maanaam mooy mooy mooy lu baax rek maanaam lépp loo xamante ne day defar maanaam luy defar rek maanaam côté loolu moom mooy wal takum minkum ummatun yad'una ilal xayr maanaam te sax loolu mënef na koo tuddee l'islam maanaam mu alxayru booba day daal di tekki l'islam day daal di tekki lépp loo xam ne lu yéwénal la muy alquran ak sunna Euh, te loolu moom mooy nan maanaam na ngeen nekk wala tax minkum umma maanaam yéen nekk leen ay xeet xeet woo xam ne maanaam loolu tegtalewul ne na am ci yéen ñu mel nii déedéet li muy tekki mooy yéen nekk leen xeet woo xam ne nii ngeen mel moo tax min boobu bayaani yàlla comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu mu nekkoon kon wal takun na nekk kon minkum euh, maanaam na ngeen nekk yéen ñii ñëpp maanaam na ngeen na nekk mbool ci seenu mbooloo ummatun xeet woo xamante ne yad'una ilal xayri dañuy wootee jëm ci lislaam jëm ci li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla maanaam kon foofu alxayru lool lay tekki dégg nga wa a bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkari ulaa'ika humul muflihun te ñuy digle lu baax ci tere lu bon daan ñooy ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñi texe euh, comme li nga xamante ne tamit gisoon nañ ko ci moom mooy maanaam biñ ci mujj woon a gis bi weesu moom mooy euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ab maanaam wala boog am na beneen maanaam bu ñu gisoon moom mooy lépp loo xamante ne jëf ju baax la comme ni nga xam ne jëf ju baax yooyu comme fa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara maanaam comme képp koo xam maanaam képp koo xamante ne jëf na lu tolloog lu tolloog misla fa may ya'mal mithqala mithqala lu tolloog luy luy peese luy mandaxe zarra mooy ak pepp xayran ci lu baax maanaam ci yiw maanaam mooy bépp jëf joo xamante ne rek jëf jooju jëf ju yiw la bu boobaa ah, loolu lay daal di tekki gisoon nañ tamit ne day tekki eh, doom ju baax comme ni nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe ne wat asa an takrahu shay'an wa yaj'alu wa yaj'alu Allahu fihi xayran katira fekk muy wax ci jigéen ñi nga xamante ne léeg-léeg mën ngeen leen a eh, bëgg a takka takka takka ak ñoom Euh, bu boobaa euh, mu ne mu ne bu boobaa mu ne léegi nag yéen léeg-léeg ngeen daal di euh, bëgg ñi nga xamante ne ñoom ñu maanaam ngeen sib ngeen sib ñi nga xamante ne noonu la ñu doxalee ak yéen wala bokk ngeen sib leen ba pare fekk ne buur yàlla subhaanahu wa taala na ci ginnaaw loolu yëpp mu daal leen ci defal ay doom yu baax naka noonu bokk na ci maana yi nga xamante ne moom la xayr am moom mooy euh, li moom mooy ak euh, moom mooy euh, ngëneel comme wa huwa xayru raziqin maanaam moom li muy tekk moom mooy moom borom bi subhaanahu moom moo gën ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wërsëgalaate ak tamit comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa wax naan maanaam léeg-léeg tamit mu nekk comme tamit fi muy waxee naan wa huwa xayrul xaakimiin maanaam te moom mooy ki nga xamante ne moom moo gën ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy tëral ñu leen di atte yéen ñëpp maanaam moom mooy ñi nga xamante ne moom borom bi subhaanahu wa taala moom moo ci gën am na amma li nga xamante ne léeg-léeg day daal di tekki aafiya maanaam jàmm maanaam euh, maanaam ak mucc comme fi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax ne in yamsas in Allahu bi durrin falaa kaashifa lahu illaa wa in yams wa bi xayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir moom buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne su fekkente ne moom buur yàlla subhanahu wa ta'ala in yamsaskallahu bi bi durrin manam bula bula lalale manam bu tege ci sa kaw ak lor mu ne falaa kaashifa lahu illaa huwa kenn du ko wuññi kudul mom euh te euh muné waaye nak bu fekkente ne lu bon daf la lal mom euh mom mom bur yàlla subhanahu wa ta'ala manam bu fekkente ne nag ak jàmm mo la dal manam moy contraire lor maanaam li nga xam ne mooy safaanu lor moom mooy xayr mooy yiw maanaam mooy jàmm rek nekk ci maanaam dara bañ laa laal ci lor ah, am na beneen maanaam maanaam bu boobaa ne borom bi subhaanahu wa ta'aala ne fa huwa alaa kulli shay'in qadir moom buur yàlla am na sañ-sañ ak kàttan ci def lu ko neex ci mën a ci def lu ne eh, léeg-léeg tamit eh, eh, moom bi borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam maanaam léeg bi li nga xam ne moom mooy xayr di tekki ngëm yàlla comme fi nga xamantene mom la borom subhanahu wa taala di wax nan law alima allahu fihim khayran la asmaahum manam ne borom subhanahu wa taala di wax yéeféeri ne bo gisee ñi nga xamantene seen xol mom dafa tëju manam borom subhanahu wa taala ne su fekkonte ne xam ci ñoom yiw moy gëm yàlla xamna ni ñi am nañ capacité meuna gëm yàlla la asmaahum kon dina leen dégtal alquran bi manam moy alquran bi buñ ko waxe borom subhanahu wa taala dina leen may ak deg deg ci alquran boobu ñu xam ne loolu ah, mën naa ne naka noonu li nga xamante ne léeg-léeg euh, day daal di tekki euh, euh, ak xeetu rammu maanaam ak maanaam lépp loo xamante ne ak njariñ la boo xam ne day ñëw ci man te loolu moom mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di borom wa taala wax ne ko ko qul law a'lamul ghayba lastakthartu minal khayri wa ma massaniya suu waxal ne su fekkoonte ne xamoon naa kumpa maanaam lépp loo xamante ne rek naar naa xew rek xamoon naa ko ci détails yi ni mu gën tuute maanaam kon de bu boobaa li nga xamante ne mooy njariñ yi ñëw di ñëw ci man man doon naa dem wut ji léegi maanaam kon mu daal di mën a yegg si ci man mooy boobaa njariñ lay daal di tekki buy ñëw ci nit ki te bu boobaa dara lu doo doonu ma woon dal euh, li ne euh, beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy euh, xay xayru léeg-léeg mu tekki njëg bu woyof maanaam njëg bu seeru dara comme fi maanaam fi mu naan inni araakum bi man de damaa gis ci yéen maanaam ne njëg bu woyof ngeen may defal euh, naka noonu euh, comme euh, na nga xamante ne noonu gisoon nañ tamit baatu naafila mais xayr fi'lal xayraat maanaam loolu wa fi ilayhim fi'lal xayraat comme ni alquran wax loolu boobaa day daal di tekki loola moom waf'alul xayra mooy def leen jëf yu baax yëpp maanaam bu boobaa tamit day daal di tekki jëf yu baax am amma fi'lal xayraat moom mooy eh, jëfu naafila yi eh, bokk na ci eh, borom bi subhaanahu wa bi muy wax ci wàll maanaam naan lakum fiha xayr maanaam loolu pay lay tekki mooy ne di ngeen ci am am pay bu am pay mu baax naka noonu borom bi subhaanahu maanaam am na yeneen i maanaam comme li nga xam ne léeg-léeg day daal di tekki day daal di tekki ak fegu maanaam ak fegu comme fi mu naan maanaam mooy ne nit koo xamante ne Euh, du du du dem di def ji lu bon maanaam loolu xayr day daal di tekki loolu comme ni nga xam ne walaw laa iz sami'tumuuhu zanna al-mu'minuuna wal-mu'minaatu bi anfusihim xayra maanaam lan moo woon bi ngeen déggee loolu euh, nit ñu maanaam zanna al-mu'minuuna njortu maanaam nit ñu baax maanaam nit ñi euh, maanaam nit ñi zanna al-mu'minuuna nit ki. Eh, maanaam jullit bi way gëm ñi ñu góor ñi ak way gëm ñu jigéen ñi dana loolu naat bi am fusim ci seen bopp xayran ak fegu maanaam moom mooy eh, fegu mooy bañ a nekk ci jëf yu bon yi lool tamit alquran day wax kon baatu xayr fekk loolu la ci jublu eh, léeg-léeg tamit comme ni nga xamante ne noonu lañ ko maanaam noonu la nekkee ci xissa boobu nekk ci suuratu nuur muy sox soxna Aisha radiyallahu anha maanaam bi nga xamante ne borom subhaanahu wa taala dafa wax ne waaw ñi nga xamante ne ñoom xëy nañu ñu ngi toog di xalaat na xëy na soxna Aisha radiyallahu anha lii ñu koy tuumaal def na ko wala defu ko ñooñu lan moo tere woon ne bu ñu ko déggee ñoom en tant que yàlla nekk ay jullit ñu daal di njort ci seen euh, ci seen bopp ñoom maanaam mooy seen mbokk jullit ñi comme seen bopp la mu ñu njort ci seen bopp yiw maanaam ne ñoom kat danañu fegu te du ñu nekk ci loo xamante ne lu bon la euh, ak tamit maanaam léeg-léeg day tekki tamit ak mbaax maanaam mooy euh, salaaxu bi tekki ak mbaax comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala euh, di waxe wax wa kaatibuhum in alimtum euh, fihim xayra maanaam seen jaam yi nga xamante ne ñoom maanaam bu ñu ñëwee ne dañoo bëgg euh, daal di bindu su ko defee ngeen def contrat boo xamante ne day tax ngeen mën leen a bàyyi libéré leen waaye ñoom ci kaw ñu fay leen mu ne loolu na ngeen ko nangu bu fekkente ne xam ngeen ñoom ak mbaax ne ñoom maanaam as-salaah comme bu boobaa maanaam lay daal di tekki te moom mooy ak mbaax. naka noonu euh, euh, day daal di euh, tekki maanaam moom mooy ak ngañaay maanaam comme ni yow yaxsabuna al ahzaba bi mu naan bi mu naan lam yanaalu lam yanaalu xayra maanaam lam amuñu ak ngañaay maanaam loolu loolu lay daal di tekki comme bu boobaa xayran loolu lay daal di tekki moom mooy gañe ci biir xeex bi Euh, beneen bi ci des tamit moom mooy day tekki ñam comme ni nga xamante ne noonu la yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam waxoon ne rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir maanaam ñam ak wërsëg maanaam lay daal di tekki lépp loo xamante ne euh, dana tax mu mën a dund moom mooy rabbi mooy ba mu demee toog ci ci garab ga ca Madyana daan ni rabbi yow sama borom de inni naka man lima anzalta ci li ngay wàccee ilayya ci man min xayrin ci loo xam ne danaa ko mën a dundee maanaam loolu lay tekki maanaam lu ñu mën a dundee maanaam rek faqiir loolu lu ko ku ko euh, ku ko euh, euh, naka noonu al xay xayr maanaam yiw day daal di tekki alal joo xamante ne alal ju baax la ju ñu mën a jariñoo ngir jaamu yàlla te sax bu fekkente ne dañ ko tënk ci aaya bi nga xam ne borom subhaanahu wa taala daf ko ci leeral loolu day daal di tekki aussi Euh, aw ay fas comme bi yent yàlla euh, Souleymane alayhi salaatu wassalaam waxe woon inni ahbabtu hubbal xayri an di maanaam man de damaa sopp li nga xam ne moom mooy bëgg lu baax maanaam euh, bëgg lépp loo xamante ak jaa dañ koy maanaam ak lu luy jaamoo yàlla la maanaam foofu nag dafa am sew-sew borom yent yàlla Souleymane alayhi salaatu wassalaam waxul ne inni ahbabtul xayra waxul ne man damaa bëgg lu baax maanaam waxul ne dafa bëgg Euh, fas yii nga xamante ne dañ koy dañ koy jëfandikoo ngir di xeex ci yoonu yàlla waxul lool de dafa de damaa bëgg soppu loola maanaam kon moom mooy tey masalan nit koo xamante ne euh, euh, maanaam loolu moom mooy dayoo bëgg lu baax maanaam mooy dayoo bëgg li nga xamante ne moom mooy lépp loo luy tax nit ñi di xeex di yoonu yàlla ci kanam maanaam loolu daf koo bëgg maanaam moom yawul ci bëgg yoonu yàlla jëm kanam mais dafa bëgg lépp luy tax yu maanaam lépp lépp loo xamante ne. Euh, dafa askanante ak sopp googa te masalan tey bu fekkente ne euh, benn waay euh, masalan dafa da dafa sopp benn mbir maanaam wala boog maanaam lu mu sopp loo xamante ne moom moom ay ay ay ay doxalinam la masalan dafa sopp masalan di di dawi ji maanaam di def sport wala yooyu noonu sopp gi yegg ci niveau boo xam te ne képp ku mu gis ku sopp loola maanaam kuy def loola moom day sopp loola maanaam le fait nga sopp loola maanaam loolu moom mooy ahbabtu hubbal xayri maanaam moom mooy yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam tellement que dafa bëgg luy jëmale yoonu yàlla kanam ba nga xamante ne moom nee yàlla ne moom ne dafa dafa sopp te yàlla daf ko sopploo muy di nekk di xool maanaam képp koo xamante ne da nekk ci loola loolu moom moo tax kon mu nekkoon di euh, xool fas yi euh, di leen euh, di Euh, di di di xool tur bi maanaam fas yi nga xamante ne ñoom lañu ñu indi maanaam mooy alxayr maanaam ne ñi sopp fas yi sax moom da leen sopp ak dafa sopp tamit ku sopp fas yi maanaam ak sopp nga xam ne moom moo nekk ci fas yooyu fas yooyu lay tekki ak bépp moyen bépp boo xamante ne dana tax nit ki euh, maanaam yoonu yàlla di jëm ci euh, kanam léeg beneen bi nga xamante ne maanaam léeg-léeg xayr day daal di kattan. maanaam comme li nga xam ne moom borom subhaanahu wa taala doon wax naan ahum xayrun am qawmu tubba maanaam ndax ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo gën maanaam mooy ñoo ëpp doole xayrun ñoo ëpp doole lay tekki maanaam kon kattan euh, wala boog qawmu euh, tubba te ànd ñoo loolu ñëpp ñu ahlaknaahum alagoon nañ leen ñoom ñii euh, naka noonu tamit xayr day daal di tekki teggin maanaam ay yor teggin yu rafet comme li nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala bi mu naan walaw annahum sabaru hatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum euh, maanaam euh, bu fekkoonte ne ñoom muñ nañu maanaam ñoom euh, jullit ñi nga xam te ne dañ lay woowee ci ginnaaw néeg bi maanaam di sëpp bunt ki kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam di coow ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam di xam ne yegsi na wala yu mel noonu mu ne walaw annahum maanaam ñiy def loolu walaw annahum ay ñoom sabaru mu nañ muñ nañ hatta taxruja ilayhim mbete nga génn ci ñoom mu ne la maanaam nga génn jëm ci ñoom mu ne la kaana loolu doon na nekk xayran lahum maanaam nekk teggin euh, bu rafet ci ñoom ba euh, naka noonu tamit euh, maanaam beneen maanaam bi nga moom la am muy xubbul maanaam maanaam sopp nekk maanaam alxayru nekk adduna rek xam ne la boobaa suñu aaya bii di dugg maanaam maanaam wa iza day daal di dugg ci euh, baat boobu naka noonu fi borom subhaanahu wa taala di wax naan wa innahu li xubbil xayri la shadid naka euh, moom euh, doomu aadama day sopp gi nga xam ne moom la sopp al xayr mooy alal adduna mooy adduna rek ak lépp loo xamante ne bànneexu àdduna la ak luy wër-wër loo ci adduna rek nit sopp gi mu ko sopp dafa tar ci kaw loolu kon gis nañ fi lu tolloog ñaar fukki maanaa ak ñett euh, wala ñaar fukki maanaa ñaar ci euh, ñaar fukki ñett ci euh, alxayr loo xamante ne alquran daf koy wax fekk loolu bi wax ne in ida fii nag adduna la tekki rek lépp loo xamante ne alalu adduna la ci maanaam bi lay dugg mooy adduna alalam ak loo xam ne pomit laam pomitam la neexaayam ak mboolem yi nga xam ne ñoom ñoo ci wërwërloo loolu aaya bi kon boobu maanaa la yor bu boobaa mu ne wa iza massahul xayru bu boobaa mu daal di nekk ki nga xam ne manua day daal di euh, day daal di fexe ba euh, kenn du am li nga xam ne moom mooy Euh, yiw woowa maanaam dal da koy xañ gaa yëpp ñu naan mukk yéen kay bokkoo leen ci euh, manu maanaam manua maanaam euh, moom manua superlatif la ci man ma ci man man ci man naa maanaam man naa moom superlatif la ci maanea maanea mooy ci xañaate ci xañaate bu demee ba yegg ci yenn niveau yi kooku la ñu tuddee man naa comme ni nga xam ne noonu la alquran di waxee naan man naa leen xayri mu'tadin asiim kooku man naa lay daal di tekki euh, ah, léeg-léeg tamit mu daal di ñëw kon man naa am um leen xayri mooy day xañe lépp loo xamante ne luñ mën a jëfandikoo la boobu tamit beneen maanaa la mooy jumtuwaay lépp loo xamante ne comme fi mu naan wa yamna'una al-ma'un lépp loo xam ne jumtuwaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla léeg-léeg ñoom dañuy koy bañ ne duñ ko abale duñ ko maye duñ ci joxe duñ duñ jare duñ tax nit ñi jariñoo ko kon mu daal nekk kon maa man man man man man man naa man man man naawul kon moom mooy euh, léegi nag bu demee ba ji gi dayo loolu la ñu tuddee man man wóora tey euh, bu fekkente ne dañ naan euh, diw dey ñu ne diw dey sëñ bi mbay dey moom rajulun akil la maanaam moom lekkkat la kooku buñ ko waxee waa lekkkat lay teg waaye buñ ne sëñ bi mbay ak kaal maanaam mooy niveau bi gën a mooy mooy gourmand maanaam mooy gourmand loolu lañ naan ak kaal lekkkat dëgg waaw lekkkat dëgg mooy ak kaal léegi nag bu ñëwee sëñ bi mbay moom ak kuul la mooy frigo wala boog ab ab pantere bu lëmm buñ ko tegee mën na koo lekk euh, ci benn bés loolu moom mooy ak wul kooku moom day lekk bu baax a baax a baax waaw kooku Euh, dégg nga kon loolu moom mooy euh, comme comme nii kii di def ñoom akul lañ euh, nii njéeréer yi di def bu ñëwee ci ab tool nga xamante ne baykat bi lu kontaan kontaan ci toolam bu ñëwee ñoom fa jaaree benn waxtu wala benn bés kese bu ñëwee moom day nag ngir dina fekk ñu jël ñoom maanaam ni ñu koy lekkee day day yéeme loolu mooy akul nag man woo xool ko léegi ci ñetti niveau yooyu maanee on mooy ci xañaate man naa mooy xañaakoon waaye manoo moom mooy ku jéggi ci xañaate kooku boobu nam ca mel euh, daa jéggi dayoo mooy du yam moom ci di bàyyi di xañe waaye day xañ ba pare di wax ñeneen yi ne yéen it dee leen xañe ah, ngir ne manaa léegi nag bu xoolee euh, radical bi mooy al manawu ci alquran buñ ko xoolee moom dinañ gis ne dafa am ay maanaa tamit yu bari yoo xamante ne yooyu la euh, amee bokk na ci maanaa yi moom mooy kere mooy di tere comme lii borom subhaanahu wa taala di wax ne wa man azlamu mimman mana'a masajid allahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi xarabiha mu ne ana kan moom mooy ci gën a tooñ ki nga xamante ne day daal di tere nit ñi am masajid allahi tere jumaa yàlla yi jàkka yàlla yi an yuzkara fi hasmuhu ci ñu koy tudd turam wa sa'a fi xarabiha ba pare muy daw di dox ci lépp loo xamante ne Euh, di def yitte saa di def yitte ak coono ci lépp loo xamante ne euh, da koy gental day gental jàkka ji day tax bu fa kenn ñëwati borom subhaanahu wa ta'aala ne ulaa'ika maa kaana lahum an yadxuluhaa illaa xaa'ifiin ñooñu noonu waruñu faa mën di ñu koy dugg lu dul ñu nekk ñu ragal buñ koy dugg rek nañ fa duggaale kiitaan waaw lahum fi dunya khizyun wa lahum fil aaxirati azaabun aziim ñooñu dinañ am ci àdduna ak euh, gàcce. waye tam alakhirah dañ am mbugal mo xamantene ne mbugal mu reey la kon tere fofu nonu euh tere lay daal euh tekki euh naka nonu tamit fi nga xamne mom moom la moom la ñuy wax nan naa fekk naan alam na alam nastahwizkum wa na alam nastahwizkum wa nam alam alam nastahwiz alaykum wa namna'kum minal mu'minin alam nastahwiz alaykum wa namna'kum minal mu'minin xanaa du dañu leen a dañu leen a waxoon na ngeen def ndànk maanaam nee nañ def leen attention. wanam na kum minam minin ba pare ñu daal di leen di tere jullit ñi maanaam foofu tere lay wax waxoon nañu mën maanaam ñoom bu ñu nekkee ak seen ay mbokk naafeq euh, bu amee ñenn ci ñoom ñu dem ci jotaayu jullit ñi ci jotaayu nit ñu baax ni dañ naan leen yéen foofu waru leen fay dem quoi tere woon nañ leen ko waxoon nañ leen ne bu leen fa dem waxoon nañ leen bu leen fa dem parce que ñooñu bu ñu fa demee dañ fay dégg loo xamante ne day day day day yëngal seen xol comme que day yëngal seen xol nag bu boobaa ñoom bu ñu ñëwee fii dañuy perturber gars yi léegi ñu ne leen waxoon nañ leen ñii bu leen leen déglu nii bu leen leen topp loolu tamit da koy gis ba léegi noonu lay demee léeg-léeg euh, ñu ne la oui kooku bu ko déglu day da lay perturber kooku kooku doo day day day yàq sa xel kooku déglu loolu moom mooy wa nam naqum minal mu'minin euh, beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy léegi man man a tamit sabab maanaam lan moo war a tax ba borom subhaanahu wa euh, maanaam lii moom mooy sabab bi tax lii amul loolu moom mooy sabab comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa ta'ala di wax ne wa maa mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha awwalun borom subhaanahu wa ta'ala ne dara terewuñu dara yóbbeewuñu yóbbeewuñu ci ñu bañ a wàcce ay aaya lu dul ne ñu njëkk dañ ko weddi woon ak euh, fi nga xamante ne moom mooy wa maa mana'ahum an tuqbala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 Eh, an tuqbala ci ñu bañ a xañ ci ñu nangu an ci ñu tak tuqbala nangu mooy dara yóbbeewu leen kon moom mooy kon sabab bi nga xam ne moo leen yóbbee nangam maanaam ba tax lii amuñu ko loolu manaa day daal tekki loolu kon dara yóbbeewu leen ci ne yàlla ne yéen naafeq yi borom subhanahu wa ta'ala ne naafeq dara taxul ba tax du leen nangul seen ay dépenses yi nga xam ne moom jël alal ñuy jël di ko ci lu baax naan lii lu baax la ci def illaa lu dul ne annahum kafaru billahi wa bi rasulihi lu dul ne dañoo weddi ci dëgg-dëgg yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dëgg-dëgg seenu ngëm ñoom gëmuñu yàlla en réalité gëmuñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam en réalité te euh, moo tax li ñuy gëm kay mooy la leen la la seen intérêt yi tax ba bu ñu dépensé ñu daal xool ne ah intérêt bii de dana faju wala boog lii dana tax wala boog lii danañ leen ko gërëmale wala yu mel noonu ba pare mu ne wala yatuuna salaata illaa wahum kusaala bu ñuy dukki dikkee julli bu ñu julli ludul dañuy tàyyal illaa wahum kusaala wala wala yunfiquuna illaa wahum kaarihuun du ñu dépenser tamit seen alal di di ko dugal ci lu baax ludul ne dañ leen cee loolu maanaam ne ñoom lii daal bëgguñu ko dañ koo sét euh, euh, manaa mu day tekki tamit euh, maanaam mooy mooy ñu bañ a nangu dara ñu bañ a nangu dara loolu tamit day day day day day day day day tere manaa manaa daf koy tere comme li nga xam ne noonu la mbokk yéen yàlla yusufa waxoon alayhi salaatu wassalaam ne yaa abana muni'a minnal kaylu ey eh, yow suñu bàyyi ñun day ah, fële Égypte buñ fa delluwaatee ah foofu moom duñ ñu fa joxaat dara maanaam dañ ñu koy dañ ñu dañ ñu koy xañ beneen bi ci des tamit manaa day daal di tekki eh, sadd maanaam mooy du mooyul maanaam lii tax ne dafay dummóoyuloo dara comme bi mu naan wa maa mana an naasa an yu'minu iz jaa'ahumul huda illaa an qaalu ab'atha allahu basharan rasula daaraa téerewu leen bi daara dummóoyuwu leen ci ñu gëm la maanaam mooy dara dummóoyuwuloo leen ci ñu gëm la yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga leen dikkalee lu dul lan lañ wax ndax yàlla dana yabal nit ñu nekk ab yonent loolu rek kii nit la comme ñun day lekk di naan comme ñun day mel ni comme ñun kon ñoo yem euh, naka noonu tamit kon yooyu yëpp maanaam manaa kon daf koy daal di tere comme ni nga xam ne tamit mën naa am um lil xayri daf koy daal di tekki mën naa am um lil xayri mooy koo xamante ne day tere gis nga day tere lu baax day tere njariñ kooku mën naa lay kon bu boobaa moo tax ci suñu aaya bi euh, manoor day daal di day daal di mën a tere day daal di mën a tekki manoor mooy koo xamante ne yawul ci tere lu baax waaye maanaam bu amee lu baax itam day day da koy xañe waaye yomul ci loola waaye day digal ñeneen ñi ci des ne leen mukk bu leen leen laal nii maanaam bu leen leen jeg bu leen euh, bu leen jariñoo bu leen jariñaate bu leen jariñu mukk day leen yooyu rek li ngeen nekk kon loolu moom mooy euh, manoo kon moom mooy koo xamante ne day daal di day tere kooku moom su amee lu baax comme li bi wax saa yoo xamante ne am na lu baax lu am lu mu am mbiru alalu àdduna ak yooyu yëpp moom day non seulement daf koy yamale ci boppam waaye day fexe ba piste yi nga xamante ne moom moo tax yoon yi nga xam ne moom moo mën a tax ba nit ñi mën a gis lu baax loola loolu yoon yooyu lay fatt yoon yooyu lay fatt ba pare képp koo xamante ne mooy wayam na onal mooy day yoon yi nga xam ne day tax ba nit ñi duñu jël jëfandikoo loo xam ne dañ ko jariñoo waaye nit non seulement du yem ci loolu waaye képp ku mu gis mu bëgg di jariñaate kooku moom dana fexe ba xañ la ko nga gis ne kon maanaam yooyu yëpp day daal dugg ci moom maanaam mooy day dumóoyu woolaate mooy sadda mooy manaa bi tekki sadda day day day tere maanaam manaa bi tekki tere ba pare manaa bi nga xamante ne euh, day tekki xañe maanaam loolu yëpp daf koy am te ngir lu tax ngir ne euh, forme bi tax mooy faawul bi mooy manwa mooy ki nga xam ne dafa jéggi dayo ci yegg ci niveau xañe googu euh, li nga xamante ne tamit moom moo mat a bàyyi xel fii incha allahu taala dinañ ko gis mooy al manaw maanaam di xañe ci lu ñu joyal nekk loo xamante ne lu bon la waaye loolu dinañ ko gis ci jàngat yi incha allahu taala ngir ne borom subhaanahu wa taala moom mooy almaania mooy ciy xañaate waaye loolu dinañ ci ñëw ci jàngat yi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, suñu aaya bi euh, incha suñu aaya yi bokk euh, incha allahu taala Euh, kon li nga xamante ne moom la ñuy wax kon ne bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aay yi mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala ci suñu aay yi daf ciy leeral ne nit ki maanaam dafa am noo xamante ne noonu lañ ko tabaxe te nit ki noonu nga xamante ne moom lañ ko tabaxe moom mooy dafay bëggal loo xamante ne baax maanaam lu baax moom daf koy rek daal di bëggal boppam waaye lu bon maanaam daf koy daal di bañal ñeneen maanaam lu bon itam daf koy bañal boppam waaye du ko bañal loolu moom ngir ne day bëgg daa iman di bëgg di gën ñeneen ñi nga xamante ne ñoo la nekkal di bëgg di am loo xamante ne amuñu ko di bëgg di jot ci loo xamante ne jotuñu ko loolu ngir ne eh, loolu doomu aadama ñaare mooy faral di mel noonu moo tax eh, dañuy faral di defante lu dañuy faral di waxante lu bon dañuy faral di eh, yéeneente lu bon yooyu yëpp li koy waral moom mooy ne lii nga xamante ne moom mooy jikko ji nga xam ne moom la ñu amee comme ni nga xamante ne noonu la leeree ci zahiru ay Euh, loolu jarul ñu ci dellu si ndax bu ñu xoolee aay yëpp globalement day daal di tegtale maanaa boobu euh, waaye li nga xamante ne kon moom mooy li ñuy njëkk a jublu comme li nga xamante ne moom la ñu waxoon ci suñ bi ñuy tàmbali suñ jotaay wala boog bi nga xamante ne moom lañ doon wax ci wàllu doomu aadama ne borom bi subhaanahu wa ta'ala noonu dafa bokk ci ni nga xamante ne euh, noonu la bindee doomu aadama. moom mooy ne daf koo bind mun naa am jikko yi nga xamante ne maanaam yëpp mën nañ koo tënk ci alxalaau wa doofu maanaam moom mooy ak caalit ak doyadi te doyadi googu niw doole googu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax te bokk na ci li nga xamante ne kon moom mooy euh, maanaa yooyu nga xamante ne moom la euh, euh, moom la doomu aadama am mooy doomu aadama saa yoo xamante dafa bokk ci euh, li nga xam ne noonu la mel moom mooy yàkkamti comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxee ne wa xuliqal insaanu euh, euh, xuliqal insaanu a ajal doomu aadama dañ ko binde ak yàkkamti loolu bokk na ci dikko yi nga xamante ne moom la doomu aadama am moo tax moom lu baax daf koy yàkkamti waaye lépp loo xamante ne dafa war a tax ba lu bon wala jafe-jafe wala naqar wala boog mit boo xamante ne daf koo dal mu nekk ay natt yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko koo teg moom du du ko gaaw a muñ ak muñum ko daf koy daal di jafe loolu gir ne doomu aadama moom moo mel noonu ci nature ah, loolu moom moo tax mu daal di am jikko ji nga xamante ne mooy jikko ji nga xam ne moom mooy xalaa mooy xaluwaa mu nekk koo xamante ne dafay ah, dafa am eh, eh, dafay caalit dafa nekk koo xamante ne dafa am eh, jikko yi caalit waaye jikko yaafus mooy koo xamante ne nanguwul daralu bon wala lu metti wala loo xamante ne lu yàq la wala luy gaañaate lu koy dal waaye du dellu mukk ci boromam subhaanahu wa taala ànd ne loolu la ko waroon a jariñ comme nga xam ne insha allahu taala ko gis euh, naka noonu euh, bi nga xamante ne euh, noonu la bokk na ci niñ ko moom mooy comme li borom bi wa taala ne innahu inna al insana la zalumun kafur maanaam naka doomu aadama day moom tooñaa koon la Euh, waaye nag weddi waa koonu yàlla la borom bi subhaanahu wa taala ak innal insaana la kafuur euh, naka doomu aadama day weddi borom bi subhaanahu wa taala xam ne noonu la wax ne innal insaana li rabbihi la naka doomu aadama de dafa nekk koo xamante ne day weddi boromam subhaanahu euh, noonu tamit bokk na ci ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala bindee doomu aadama mooy fa iza huwa xasimun mubin maanaam moom doomu aadama day daal di nekk koo xam ne xuloo wala la dagg sante wala la ak yàlla borom subhaanahu wa taala boo xamante ne bu fës la maanaam comme ni alquran wax tamit wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala maanaam doomu aadama dafa nekk koo xamante ne lu bëri bëri daf koy day diingat di werante dafa bëri lu muy bëgg di werante di diingat ci loo xamante ne xëy na xam-xamam yeggu ca wala moo mu nekk koo xamante ne euh, amu ci lu ko wala boog mu nekk loo xam ne day weddi ci loo lépp loo xam ne dafa jóge ci borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ñoom euh, naturellement doomu aadama day nekk koo xamante ne ni mu bindoo mooy su bëggee dafa war a dafa war a dem ci yàlla maanaam mu nekk koo xam ne day jaamu yàlla di topp li nga xam moom mooy la yàlla wax di te bàyyi nga xam ne moom la yàlla di tere di topp njàngale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye doomu aadama euh, néewaan na koo xamante ne doomu aadama moom ci boppam day daa di nangu loola ngir lu tax mu ne dafa nekk koo xamante ne dafa am jikko jooju mooy jikko yi jikko yi man di di di jikko di diingat di di di bañ li nga xamante ne moom mooy ba li borom bi subhaanahu wa taala di di di di di li borom bi subhaanahu wa moom ngir ne seytaane moom la topp daal koy def ak parandoom comme ni nga xamante ne borom bi subhaanahu wa wax ne wa laqad saddaqa alayhim iblisu zannahu illaa qalilan minal mu'minin ne iblis tam dëgg-dëgg njortam bu ñaaw googu mu amoon ci doomu aadama ne xelam tax koo ñor lool maanaam njort bu ñaaw googu dëgg-dëgg nit ñi ñag dëggalal nañ ko ko euh, te moo tax ñoom ñëpp topp nañ iblis maanaam topp nañ ko ba mu des ñu néew a ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy way euh, gëm yi naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy doomu aadama li mu bindoo moom mooy euh, bañ gi muy bañ Euh, njariñe ak tamit euh, nay bi nga xamante ne moom la nay mooy ngott bi nga xamante ne moom la ngott comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax bi mu naan qul law antum tamlikuuna xazaa'ina rahmati rabbi rahmata rabbi la amsaktum xashyata al infaaq wa kaana al insaanu qatuuraa maanaam ne bu fekkonte ne yéen day waxal ne yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen bu fekkonte ne yéen a moom euh, li nga xam ne moom mooy magasin yi borom bi subhaanahu mooy xazaa'ini maanaam xazaa'inu rahmati rabbi yi sama yërmande borom subhaanahu wa ta'aala ay bu doon yéen a ko yor yéen doomu kon de la am saktum xashyatal infaq kon de ragala dépenser dana leen dana leen kii dana leen eh, dal lu tax mu ne wa kaanal insaanu qatuura ngir ne nit daa mortu maanaam nit duy faral di bëgg di joxe ndax day jàpp ne léegi léegi tey eh, bu joxee rek eh, daa day daal nekk koo xamante ne ah, Euh, day day maanaam bu joxee rek léegi day daal di yaakaar ne dootul amati maanaam day moo tax euh, loolu seytaane wax ko ko mooy ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha ne seytaane moom daf leen di digg dig loo xamante ne ak ñàkk la eh, lii boo koy def ñu doxe gi moom boo koy def di ñàkk dépense gi boo koy def di ñàkk humanitaire baax na mais bon xamal fi nga yam quand même nangam yooyu noonu moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax ba doomu aadama du nangoo joxe nday seytaane daf koy daal di nax Euh, naka noonu tamit li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa di wax tamit ci doomu aadama bokk na ci euh, jikko yi nga xamante ne euh, moom la ame mooy dafay nekk koo xamante ne day day dute ci ëllëgam maanaam ngir ne ëllëg ndax yawmal qiyaamati dana am ndax dinañ ko mën a dekkal loolu lu ëpp ci doomu aadama yi noonu la ñu bind comme waaye doomu aadama boobu nag muy yéeféer bi nga xamante ne xamul yàlla xamul euh, alquran ak sunna naka noonu gëm-gëm dafa des ci moom kook moom mooy wax ne comme li borom subhaanahu wa taala wax ne wa yaqulul insanu aidha ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku shay'a maanaam ne doomu aadama bokk na ci ni nga xam ne noonu lañ ko bindee moom day wax ne euh, moom doomu aadama ne waaw ndax man su ma deewee aidha ma mittu waxul sax aidha mittu su ma deewee dañu aidha ma mittu maanaam mooy est-ce que su ma deewee ak lu mën a xew ak lu mën a xew maanaam ak nu ma deewee ak lu mu yàgg-yàgg ay da maa mit la sow fa uxrajo xayya ndax daañ ma mën a ma dunda borom bi subhaanahu wa ta'ala ne awala yazkuru insaanu ndax doomu aadama fàttalikuwul ne annaa xalaqnaahu min qablu wa lam yaku shay'a maanaam ne ñun ñoo ko bindoon nekkutoon dara maanaam kon loolu day wane ni doomu aadama ñaare duñu ga maanaam mémoire bi dafa gàtt maanaam duñu du euh, day gaaw a fàtte comme ni nga xamante ne lool moom moo tax tamit ñu tuddee ko insaan mooy koo xamante ne euh, dafa gaaw a fàtte te loolu gisoon nañ ko ci maanaay bi nga xamante ne moom lañ doon wax maanaam lii nga xamante ne moom lañ nekk di wax nii te borom subhaanahu wa taala daal di koy tënk yëpp ci ne innal insaana xuliqa moom mooy dafa yaafus te dafa nekk koo xamante ne euh, dafay caalit mooy mënta mesurer du du mën a am comportement bu baax ci kanamu lu baax nii ci kanamu lu bon ci kanamu xéewal nii ci kanamu euh, euh, safaan ba ci kanamu njariñ du ci kanamu lor loolu maanaam comportement bu baax bi ci war a am du ko mën a am yooyu yëpp ñoom ñoo tax mu maanaam mu mel nii euh, loolu borom bi subhaanahu wa ta'ala tamit di ko leeral naka noonu tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala melal na doomu aadama ne tooñkat la maanaam tooñ dafa nekk ci loo xamante ne daf koy faral di def ba noppi tamit mu nekk koo xam ne dafa réer li mu naan wa kaana insaanu zaluman jahula mu ne doomu aadama day dafa nekk koo xamante ne zaluman tooñaakoon la waaye jahula réer la maanaam nga gis ne jëfandikoo bi waxu sax zalim wala zallam waaye daf ni zalum maanaam mooy ne kon tooñaakoon bu réer la waxul jaahil dégg nga waaye daf ni jahul maanaam moom mooy koo xamante ne euh, tooñ la tooñ bi nga xamante ne euh, moom la mën a tooñ tooñ la boo xamante ne tooñ bu rëy rëy la kon li nga xamante ne doomu aadama nag daa iman maanaam euh, lu ëpp day daal di tooñ day tooñ boromam subhaanahu wa ta'ala naka noonu day tooñ boppam naka noonu day tooñ doomu aadama mi naka noonu tamit day tooñ euh, mbindeef yi kon yooyu yëpp moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy li xew ci doomu aadama naka noonu tamit doomu aadama borom subhaanahu wa ta'ala daf ko bindee ak jax-jaxal maanaam comme bi nga xam ne noonu lay wax ne wa laqad xalaqnal insaana wa na'lamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne noonu naka ñun day bind doomu aadama wa laqad xalaqnal insaana euh, ñun day bind nañ doomu aadama waaye wa na'lamu ñun xam nañ ñun yàlla maa tuwaswisu bihi nafsuhu li nga xam ne moom lay jax-jaxal ci xolam moo tax doomu aadama yi lu ci ëpp am ay jax-jaxal maanaam dañuy bëri lu ñuy sikki sàkka dañuy bëri lu ñuy euh, déngi déngi te lu ci ëpp tamit seytaane daf leen di maanaam di nax comme ni nga xamante ne moom mooy al waswaas maanaam euh, mooy mooy mooy waswaasul xannaas moom mooy al xannaas nga xamante ne fi muy jaaree ba nax leen wala fi muy jaaree ba dugal xalaat bu bon ci seen xool ak seen ay xalaat loolu dafa bari loolu moom moo tax ñaare di doomu aadama di amee ay jikko yoo xamante ne jikko yu ñaaw la lu demee nekk ñaaw njort lu demee nekk di xalaat ne di xalaat ay xalaat yu bon wala boog léeg-léeg buy fàtte boromam subhaanahu naka noonu muy jékki-jékki di sikki sàkka wala boog yeneen mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo koy dal euh, yii yëpp nag ay mbir la yoo xamante ne yuy euh, dal euh, doomu aadama la waaye borom bi wa taala tamit mi ngi ne doomu aadama dafa nekk koo xamante ne bokk na ci jikko yi nga xamante ne noonu lañ ko tabaxe mooy ne doomu aadama day faral di nekk nit day day faral di nekk mbindeef boo xamante ne dinay mën di ràññeet la yenn mbir waaye nag dafay bëri lu mu koy ràññee ba pare bañ ko comme ni nga xamante ne noonu Euh, la waxee comme niñ ko gisee léegi euh, euh, wa laqad xalaqnal insaana min nutfatin fa izaa huwa xasiimun mubiin bind nañ doomu aadama ci toq ndox waaye nag nga gis ko mu nekk koo xam ne day dàgge day xuloo bari waaye tamit naka noonu tamit bi naan balil insaanu ala nafsihi basiira wala alqaa ma'aaziira maanaam doomu aadama day moom xam na boppam maanaam ala nafsihi basiira maanaam moom gis na boppam tey bu toogee ruq mën a kan comme li borom subhaanahu wa taala wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne waxal qul innama a'izukum bi wahida an taqumu masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi saahibikum min jinna maanaam ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nee nañ yow dafa am jinne wala la dal wala boog dangaa dof wala boog euh, dafa am lu la dal loo xamante ne moom moo tax ngay nekk di wax yii et que illuminé nga moo loolu ñoom loolu la loolu la ñu tuddee illuminé mooy waajoo xamante ne dañ koo jàppe rek comme koo xam ne day jekki-jekki rek tëdd benn guddi rek yeewu rek daal di commencé am yu mu gént wala yenn rek daal di xel mi wëlbatiku wala boog euh, mu am euh, lu ko écrasé wala boog yu mel noonu wala boog mu daal di xëm wala ximmali ko daal di commencé wax ay waxam euh, jàpp ne maanaam nekk illuminé noonu maanaam commencé wax ay wax yoo xamante ne wax yi di wax wax yàlla ak ay xeet yu mel noonu ñu ah saa yi daal temps yi moom am na lu ko dal quoi wala yu mel noonu loolu nag moom lay wax ne ñoom mu ne waxal ne waxal ne. léegi man lenn rek laa leen di waaree moom laa leen di xuppee moom laa leen di dànkafoo a'izukum bi wahida an taqumu naa wa furada maanaam moon ngeen di toog par ñaar groupe ñaar dem leen ngeen toog par groupe ñaar wala groupe benn parce que fa tatafakkaru topp ngeen xalaat topp nag ngeen commencé méditer ngeen xalaat di ngeen xam ne maa bi saahibikum min jinna kii jinne sax du ko dara dalu ko comme ni wolof yi naan doful dina jàpp ko loolu maanaam loolu abba dandalu yeneen yi alayhi salaatu wassalaam dalul yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ñoom pour ñu discréditer ko il fallait que ñuy utiliser ay baat yu mel noonu maanaam te loolu dañ ci xamee ni doomu aadama tamit naturellement noonu lay def mooy moom day daal di gis ne moom dafa am ay problème mais problème yooyu au lieu mu régler ko ci boppam maanaam alqa ma'azira maanaam da ngay daal di gis euh, euh, mu daal di euh, commencer commencé di wut ay ngant te ngant yooyu léeg-léeg daf koy wut ci bitim moom maanaam du ko wut ci biiram mais daf koy wut ci bitim loolu euh, moom mooy euh, loolu day daal di euh, tekki maanaam day daal loolu moom mooy li nga xam ne moom la doomu aadama wax beneen bi ci des tamit moom mooy ne doomu aadama du def li nga xamante ne moom la di def li yàlla digle ak di bàyyi li mu tere loolu boo doomu aadama ñaare du nekk ay jikkoom comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ne maanaam loolu du naturellement lu yomb doomu aadama loolu moom moo tax sax d'ailleurs borom bi di wàcce alquran ak sunna di wàcce yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam di wàcce ay boroomi xam-xam ak ay nitu yàlla ñuy leeralal nit ñi yoon bi ngir tamit di leen ci njëkk di leen ci teg di leen ak yu mel noonu di leen yombalalal mbir mi ngir xam nañ ni doomu aadama naturellement day daal di bëgg di dem ci lépp loo xamante ne day topp bànneexu bakkanam ak luy tax muy daal di gën soobu ci yoon yi nga xamante ne moom la bëgg motax mu ne fal yanzu mu ne kallaa lamma yaqdima amara kallaa lamma yaqdima amara fal yanzur al insanu ila ta'amihi anna sababna ma asaba thumma shaqqna al arda shaqqa fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaqa hulba wa fakihatan wa abba ba pare borom tekki na mata'a lakum wa li an'amikum mu ne kallaa jàjjul lammaa yaqdi maa amar ba léegi lii yàlla digle woon ne nañ ko def gaa yi defuñu nekkuñ ci ba léegi gaa nekkuñ ci te loolu moom mooy ne doomu aadama moom noonu la dem moom moom lay mel waaye nag borom subhaanahu wa ne waaye nag na xool rek ñamam man fal yanzuril insaanu ilaa ta'aamihi bu xoolee li muy lekk li muy naan fan la jóge nan lay def ba am ko ak mbir mi naturellement ni muy mën di génnee loolu mu mu daal di xam ne ah lii day wax dëgg yàlla ki ko def ki ko amalee nii mbir mi di doxe nii ba pare mu def ba ci situation bii kii moom moom war naa ko mën a jaamu boo tax borom subhanahu wa bi nga xamante ne euh, moom lay amee euh, ba pare daal loolu yëpp nag mata'an lakum wa li an'amikum maanaam seenu euh, jariñoo la yéen dégg nga mata'an lakum wa li an'amikum tamit li nga xamante ne Euh, moom la borom bi tamit euh, subhaanahu wa bi wax tamit ci euh, kon maanaam yii yëpp kon ay nature la yoo xamante ne doomu aadama daf koo mel yii nag nga xamante ne moom la mel na ci mooy halaa gi comme ni nga xam ne moom mooy yaafus googu ak ak maanaam yii yëpp dañuy déterminer lan moo tax mu yaafus maanaam lu tax doomu aadama yaafus loolu moom moom moo tax maanaam yii yëpp daf koo meloo comme ni nga xamante ne li tax doomu aadama nekk koo xamante ne daa gaaw a saanit te mooy jikko yi yëpp borom subhaanahu wa ta'aala bindee ko maanaam nattoo ko yii yëpp nga xamante ne doomu aadama bu duggul ci yoonu tarbiya rek ñii lay mel loolu moom moo tax euh, aay yi ñëw gii ñu ñëw fii ci sooratul Ma'aarij di wane nan la ñuy jaaree dem ci yàlla moom dalay won tamit li nga xamante ne moom mooy lan moom moo tax ba doomu aadama pour mu dem ci yàlla mu jafe lan moo tax mu compliqué parce que su yomboon moom ñëpp yegg nañ ci yàlla parce que kenn parce que ku xam lan mooy yegg ci yàlla xam lan mooy euh, dem ci yoonu yàlla di nga nekk koo xamante ne bu ko bëgg la di nga képp koo xam ne lan moo nekk ci nekk xaritu yàlla nekk soppe yàlla maanaam nekk koo xam ne da am ngërëmal yàlla ku xam li nga xam ne moom moo ci nekk daal di man daal di bëgg di ci dem waaye bu ñu xoolee nit bëree bëree bëri dañuy am loo xam ne da leen di da leen di gaaral da leen di njett loolu nga xam ne moo leen di njett nag muy jikko yii nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa taala ne noonu la bindee doomu aadama naka noonu doomu aadama bokk na ci liy leeral yaafusam ak maanaam vraiment caalit ji muy mën a caalit comme ni nga xam ne noonu la borom subhaanahu ne fa ammal insaanu idha mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan borom bi subhaanahu ne doomu aadama maanaam bi nga xamante ne yëggul ci yàlla maanaam tarbiyewul moom nii jikko yi daf koy faral di am mooy iza mabtalaahu rabbuhu su ko borom bi nattoo mooy lu mu ko nattoo lu baax mooy fa akramahu mu daal di koy teral wa na'amahu mu xéewale ko mu xéewale wa na'amahu mu daal ne ah, na ma kon ndekete nit ñi taxaw man yàlla teral na ma maa ngi sant yàlla yàlla li ma defal loolu tekkalewul ne ba tey que ni ndekete nit ki. Euh, génn na ci mbal gi que il faut que ñu xaar ba beneen affaire bi yegg si maanaam nga gis ne moom kon hatta ba aay bi dañuy wax ne soit yéeféer yi lay waxal wala boog ñi dul yéeféer sax waaye dugguñu ci yoonu tarbiya mu ne ñooñu dañuy amee jikko ji mooy ne bu ñu amee teranga rek daan na ah man yàlla teral na ma rabbi akramani waaye wa amma idha mabtalahu waaye ay bu ko yàlla nattoo fa qadara alayhi rizqahu mu xompal ko wërsëgam qadara mi maanaam daaqa maanaam mooy mu mu mu mu xatalal ko wërsëgam mu xompal ko wërsëgam qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahaanan mu ne yàlla toroxal na ma maanaam kon nga gis ne côté bee dana na maa ngi sant yàlla nga foog ne cant gi dafa dëkku ci moom ak lu mënti xew day sant ndekete booba lu bon daa yegseegul bu musiba yegsee rek mu ne yàlla nag toroxal na ma yàlla nañu yàlla sàmm jooju jikko nag moom mooy jikko ñi nga xamante ne kon ñoom sooguñ ci yoonu yàlla maanaam yii yëpp ñu fi wax nag te alquran wax ko parce que ba léegi ay aaya alquran rek la ñuy wax yuy leeral lii nii voilà voilà mooy li alquran wax ne alquran téere la boo xam ne kitaabul mutashaabihul masaani mutashaabih la maanaam aaya yi dañoo nuroo benn bu ci nekk dafa am lu mu relation bu mu am ak yeneen aaya yi ci des ba nga xamante ne dañuy jokkalante loolu nag di jël moo tax euh, ñu ñu ñu bu ñu xoolee lu fekk ñu taxaw ñuy taxaw daayiman ci benn baat ba pare di ko delloo delloowaat lu ci bëri bëri bëri ci alquran wala ci sunna mais surtout ñu koy delloo ci baatu alquran yi maanaam ngir tamit mettre en évidence relation boobu la ba boo gisee benn baat ci ci alquran nga xool boo gisee fi muy nekk ci alquran yëpp di nga gis ni dafa am ay relation yeneen maanaam alxuraan yooyu yëpp noonu la mel maanaam fii tout est lié lépp dafa am relation ak leneen loolu moom moo tax kon téere la boo xamante ne dañu loolu la mutashaabiha mbir yi dañoo nuru nuru dafa am ay voilà mais masaani nekk loo xam ne dañuy euh, euh, masaani mooy loo xamante ne euh, dañuy taggante wala boog mu nekk loo xam xamante ne dañuy répété wu voilà mooy luy répété moy comme niñu tuddé tuddee sab'ul masaani juróom-ñaari nga xam ne ñoom ñooy répété wu lutax parce que jurum ñaar ay yoy nek ci alcorane ñoy répété wu ci bir alcorane ba alcorane jeex jurum ñaar ay yoy rek yi nek ci Fatiha yoy rek ño nek ci bolam alcorane bi di répété wu wat ci ay anam yu wuté di ñëwé ci ay façon yu wuté moom moy euh, lool moy moy kitab moy téré bi nga xamné moy mooy mutashaabihul kon euh lool yi nga xamante mom lañ ci jangat yépp boo ko gisee bu ñu fiñ ci toll loolu nag dafa am leneen lu ñuy jàngal maanaam euh, daf ñuy jàngal ne euh, lii imam Ash-Shazili waxoon radiyallahu anhu bi mu ne képp koo xamante ne duggul ci suñu xam-xam bi suñu mbir mii suñu xam-xam bii boo moytuwul buy dee day dee ci naafeq ci benn ci caru naafeq yi suñu xam-xam bi mooy lan mooy tasawuf képp koo xamante ne soobuwul ci yoonu tasawuf ñu teg ko ci yoonu yàlla boo moytu buy dee noonu lay deewaale lu tax parce que jikko yi yëpp day nekk ci nit naturellement te xam-xam benn maanaam xam-xamul islam yi dafa bëri am na ñoo xam ne yoo xamante ne mooy fiqh daf lay ñuy jëfee atte yi tere yi lan moo xaraam lan moo dagan lan soog ak lan lañ sib li nga xamante ne moom mooy aqida pas-pas daf lay jàngal gëm yàlla nan nga ko war a gëmee moom ak yeneen taam yi alayhi salaatu wasalaam ak malaaka yi ak ñeneen ak maanaam ak ak li ci li wër-wër loolu ñoom loolu la lay jàngal tasawuf moom maanaam moom moo lay jàngal li nga xamante ne moom mooy nan ngay def ba sa xol sell ba nga xamante ne da ngay ak yi nga xamante ne ñoo la tënk ba yeggoo ci yàlla nan ngay setalee sa xol ba dindi ci lépp loo xamante ne tilim tilim la loolu moom moo tax mu am ta taskiya muy dindi li nga xam ne moom mooy tilim tilimu xol yi ak tilim tilimu bakkan yi salbiyya moom mooy nan lañ lay def ba jikko yi nga xam ne mooy jikko yi yenent bi sallallahu alayhi nekk ci yow nan ngay def ba la yow nga sopp yàlla ak tarqiya mooy nan lañ lay def ba yéegale la ci yàlla ba nga jaxasoog yàlla carrément ba jeex tàkk ci borom bi subhaanahu wa taala ba nga xamante ne say wax say jëf say dem say ba yàlla ne kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi maa nekk dégg-dégg ngi muy déggee wa basarahu ak gis-gis alladhi bi nga xamante ne yubsiru bihi moom lay gisee wa yadahu ak loxo bi nga xam ne yabtishu bii moom lay yabtishu biha moom lay laale wa rijlahu ak tànkam bi nga xam ne dégg nga yamshi biha moom lay doxee yooyu maanaam mooy kon maay làmminam tamit bi muy waxee bi muy tuddee man maay nekk xelam bi muy xalaate maay nekk xolam bi muy bi muy xalame man maay nekk tamit maanaam léppam maanaam dafay dem ba am nit ki lépp day jeex ci yàlla jeex ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag yar googu nga xamante ne moom lañu la mën a yar ba foofa loolu tasawuf moo koy def maanaam moo lay jël yóbbu ci yoonu yàlla waaye nag du tasawuf bii de tasawuf gis fii bii ñuy dégg léegi nii bii ñu xam nii nii de tasawuf bi ñuy wax mooy tasawuf yàlla yu mag yi borom xam yu sell yi radiyallahu anhum loolu la ñuy wax bi nga xamante ne alquran ak sunna la boo xam ne raxul dara li nga xamante ne mooy doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci baatin mboolem lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci ni mu daan doxale ci biti ci ay cëram ak ay doxalinam lan mooy sew-sew yi ci ne ak ci biiram sallallahu alayhi salaam ak maraati yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am ñu lu ciy sóob benn par benn benn par benn ci martaba yooyu waaye loolu ki ko man mooy nitu yàlla bu sell mooy nitu yàlla boo xamante ne moom dafa yegg mooy la xamante ne ay waxam ak ay jëfam du génn alquran ak sunna kooku moo ko mën waaye bii ñuy dégg nga xam ne saa ko tuddee li ñuy moom mooy nit ku sàggan kooka bu ñu waxee tasawuf wala suuf yi ak ni wala suuf yanke nit ku sàggan kooka nga xamante ne lu yàlla di digle yëpp moom yoonam nekku ci li yàlla di tere yëpp moom bu ko neexee def ko nu mu ko neexee mboolem ñi nga xamante ne jullit ñi nga xamante ne ñoom soobuwuñ sax ci yoon yàlla ñoom ñoo ko tane ci jëfee alquran ak sunna ñoom ñooy ñi nga xamante ne woy ak fecc ak tëgg ak folklore nuy xumb ak xumbaay jéeg ak ak ak ndumbaay bi rek boobu tasawuf du boobu de. boobu moom bokku ci maanaam ñun bi ñuy gis nii boobu moom bokku ci du du bii de tasawuf bi ñuy wax mooy ñun bi ñuy wax mooy bi nekk ci téere yi nañu bàyyi bu ñuy jugé tasawuf ñu koy jugé ci gaa yi gaa yi bu leen leen xool jël leen téere yi ngeen xool leen waaye tamit ngeen xool nit koo xamante ne dina la doy par rapport ak li nga xam yow ci téere yi nit ku la doy koo xamante ne maanaam euh, nit yàlla bu la doy nga gis ne kii mat na ko nga ànd ak kooka ci yoonu yàlla comme ni alquran wax wattabi' sabila man anaba ilayya toppal yoonu ka nga xam te ne dafa jël lépp mu jox ma ko dafa ñëw ci man waaye tasawuf bii ñuy dégg moom boo baaxul bii ñuy gis fii boppam mu baaxul bii ñuy gis ci jamono jii nga xamante ne culte de personnalité kese la folklore kese la diw amul moroom kese la mooy mooy maanaam dootoo sax concentré woote ci yàlla ci boppam waaye ci nit ki rek ngay concentré wu balaa ngay gën balaa ngay gëm ne yaa ci yoon wi rek mooy bis bu jot nga nekk di di di concentré wu ci ay jëmmi nit te ñooñu liñ leen digal dong lañ nga digal yow moo xam ñu weesu lañ moo xam ñu teew lañ moo xam ñu ngi dund moo xam dunduñu yàlla yow daf la digal nga jaamu ko comme ñoom ñu leen digale woon nga jaamu ko yow ñàkkee fayda rek. bàyyi yow li la yàlla digal maanaam ngir di leen di leen tudd yoo toll jàpp nga ne sax mënoo wax ci diine te seen tur yi te képp ku koy def yow da ngay jàpp ne wax amul solo loolu moom du tasawuf loolu moom voilà tasawuf bi ñuy wax ñun te mooy bi ni ci téere yi boobu lañ xam benn boobu nag moo am beneen bi ci des dañ koo tuddee tasawuf moo tax ñu naan du tasawuf bii ñuy gis boobu moom dañ kaa tuddee tasawuf waaye du tasawuf kon ah loolu mooy li nga xam ne ah, ah, incha allahu taala ci jotaay bii di ñëw dinañu gën a ñëwaat ci buntu boobu ah, ci ay yi ngir ne ay yi dëgg-dëgg loolu lay leeral maanaam ci maana maanaam day leeral ne lan moo tax ba doomu aadama lan moo ko tënk ba du mën a yegg ci yàlla loolu moom moo tax ci jeexitalu aaya yii mu daal di wax illal musallin ba mu des ñi nga xamante ne dañoo jokkoo ak seen borom ndax al musal maam ci sila la jubbi sila mooy jokkaloo connexion ñi connecté wu ci yàlla kese ñoo amul jikko yu bon yi yëpp ñu nekk di tudd boobu léegi ñoom ñoo ñoo ci te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne sellal nañ seen xol sellal nañ seen bakkan seen ruux libéré na ba delluwaat ci fi nga xamante ne moom mooy cosaanam moy nek ci borom subhanahu wa taala comme ñi nga xamantene non lañ waxon Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu naka non mom al-Junayd radiyallahu anhu rahimahu wax nako ko biñ ne ko lan mooy almat mu ne moy nga nekk mbindeef fi ci zahir ci biti ni waaye fekk yow ci sa bir mom yàlla rek nga nekkal mënoo nek keneen ku dul yàlla ci sa bir loolu la kon ñu foofu fofu inshallah taala wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in